yaqini lal jannati ma laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zara ahmadu yaqini lal jannati ma laysa yuhmadu رسول كريم بيتنا زار أحمد وقام وسام الموت والجهل سرمدا رسول شفيع في البرايا محمد ahmadul muxtaaru laa xalqa misluhu li am daaxihi xad udd wal udu ahmadu ataani bi isnillahi jammat hibaatuhu بشير حبيب والأزاقاب مخمد لقد جاواني في البر سبقن بالورى على كل مخلوق به الخلق تسند مدين لي قاد مطلبي ولي ليس يلح الدهر واشم مفند ولادي لربي ذا سكور على النبي رسولا كريما مثله ليس يولد لقد مان من ظن المقفى محمدا yuxaaki walidan xaat mada aw sa yuladoo nu ngi leen di nu ngi leen nu ngi leen di nuyu baax te di leen ziyaar te di leen jéggalu di leen jéggal di leen ñaanal te di ko sàkku ci yéen di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak sa sëñam di Mbend mu yàgg fi lool te ànd ak wér nuy ñaanal sunu wasila di sunu sëriñ di boroom barab bii ñu taxaw di Cheikh Abdou du Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke borom makarim mu yàgg fi lool te ànd ko wér waaw nu nu koy dellu di ko ñaanal baax te di ko sant di ko gërëm ndax dëgg yàlla ñëw ngeen ci barab boo xamante ne bi lu baax fi la tàmbalee fi la yam ndax makaarimal axlaaq mi nga xamante ne bi moom la ñëpp di wër muy jikko ju rafet moom la ñëpp soxla muy jikko ju rafet sans borom dogal mu nekk ci moom sama borom dogal ko ci moom muy loo xamante ni bi moo di liggéeyam di makkaarimal axlaaq góor di di di jikko ju tedd dëgg yàlla kon boo leen ñëwee fii ñëw ngeen fi ngeen war a ñëw moom loolu la ko yàlla séddee muy jikko ju rafet mu bëgg doomi aadama yëpp waxuñu tariqa lislaam rek waxuñu tariqa murit waxuñu tariqa tijaan waxuñu tariqa layen waxunu lislaam waaye mboolem àddina bépp mboolem kuy doomu aadama rek loolu la bëgg ci yow muy jikko ju rafet di ko dund ba tax na moom lay dundeek ñëpp te it wax dëgg yàlla léegi boo duggee ci saal bi rek am na ci koo xamante ne bi mu ngi bokk ci ci ci waa kër Seydina Isa alayhi salaam indi fi mbooloo moo xamante ne bi li mu doon waxtaan ak ñoom du leen lu dul jikko ju rafet looloo wax man looloo tax ma wax ni ñëw ngeen fi ngeen xamante ne bi lu baax fi la tàmbalee te fi la yam muy jikko ju rafet nuy ñaan yàlla yàggal ko lool te yéen it nu leen di ñaanal bu baax nu leen di ñaanal bu baax seen seen seen seen seen seen seen télé bi fi ngeen bëgg mu àgg yàlla na àgg fa kawe seen jort barke sëñ Tuubaa xasaay di kontaan nan lool ci yéen yàlla na leen yàlla taxaw te te te jàppale leen bu baax a baax nu koy ñaanal nag bu baax te di sàkku ci ñëpp ñu bokk koo ñaanal ndax yàggam fi njariñ la muy sëñ Abdou Karim Mbacke ni muy dundeek nit ñi te di leen jàppale te di leen ñaanal te di leen taxaw di dund ak ñoom lu rafet ku mel nii rek a fi war a yàgg yàlla na fi yàgg lool tànn ak wér. ñu ngi nuyu ñëpp ci kenn ku si nekk turam ak santam di nuyul àdduna yëpp rawatina ak leeral TV Pape Latir Ndiaye laa tudd ñu may wax jëwrin Pape fi nga xam ni fi yëngoo mooy waañ wi ak ci daral bi waañ wi nga xam ni fi nga ñu fekk. léegi léegi rek bi may génn maa ngi nekkoon ci bagage yi nga xam ni moom la ñu war a def tey jii añ ak reer nga koy gis bi yëngu bi nga xam ni nag moom la ñuy yëngu ci moom sëñ bi dafa daf ñoo daf ñoo bëgg ñu baax rek mu boole ñi ci moo tax mu jox ñu waañ wi ñu ànd kook nuy jigéen ak suñuy mbokki taalu bi di liggéey ci waañ wi bëgguñu kenn xiif bëgguñu kenn mar gis nga daral bii li muy yaatu yaatu sëñ bi daf ma ni fu la neex jaaral yow yaa xam ñaata nag ngay tër par bis bu fi kenn jàmbat xiif bu fi kenn jàmbat mar ku fi xiif rek na nga xam ne ci sama jëmm ju xeebu ji la waaye sëñ bi jox nañu ko ba mu doy boo gisee lii pour tey rek la nga gis mbana yii gis nga mbana yi lu toll juróom fukki mbanaa ngi nii fii mu toll nii te léegi léegi lépp la ñuy taal commencé nañoo taal di dem te benn bu si nekk étape bu si nekk du bokk ak morom ma la ñuy toog. fii mu fan fanweeri saaku ceeb ak juróom ñu ngi nii ñaar fukki saaku euh, fukki saaku ak juróom ci ceeb bu bu ndaw bële gis nga soble si nii te lépp pour tey la diggante añ ak moom la ñuy bernde nii. waaye nag sëñ Abdou Karim da di jàmbaar nekk koo xam ni sunu borom da koo faale waaye moom mu faale doomu aadama nekk koo xam ni borom ijaaba jaabala lu mu ñaan sunu borom def ko ba jaamu yàlla yëpp daw ut si ko mu gàttan ñu ñun ñëpp tàllal loxo daal di ñuy gàttandu boot ñu rogganti ñi kon bisu maamam bii di bisu seexul xaddim lu mu am dina ko ci def ku fi xiif sunu jëmm yu xeebu yi la jërëjëf képp koo xam ne xiif nga fi fii nanga xam ne sunu jëmm yu xeebu yi la lépp doy na dama ne la nag yaa ngi nii lii firnde la cin yaa ngi nii teg nan lépp ci kaw taal bi lu tax ñu teg ko ngir jaami yàlla yi lekk ba suuf fii li fi ñëw ci ay nag parce que daanaka mënuñu koo xayma bari na ndax fi mu toll nii ñu ngi ci cent dix li ci sëriñ bi joxe ëpp na ñaar fukk liñ ci lewal tagaloon fi mu toll nii rek ëpp na fanweer maanaam te uh, waañu mag wi nii munoo xayma li ngay defar ndax da ngay defar fukk ñu ñëw ne la dooleel ñaar wala dooleel ñeent fii daal bernde yi bari na bari waay boo xamante ni foo ko takk rek passé na ko giléem am nañ fi juróom-ñaar nag am nañ fi uh, téeméer ak ñaar fukk waaw Euh, loolu moo fi nekk xar moom ren ñëwut waaye am na ci yeneen dal yu mu am waaw fii géttu sëñ Abdou Karim Mbacké la borom makaarimul axlaa mooy géttam gu mag yi nga xam ni mboolem fu waañ di nekk rek fii nga soqi ko gétt gi nag année bu nekk day gën a yokk waxtu wu nekk day gën a yokk waaw waañi sëñ Abdou Karim yi bari na lool maanaam ëpp na téeméeri waañ waaye fii mooy waañu mag yi soxna Maami Mbacké moo ko jiite soxna Faat Bintu kuy tegu ca soxna Liika noonu nga ko toppee ba ci njabootu sëñ bi soxna may laat ñoom ñëpp. ñu ñi nga xamante ne ñooy waa kër maam Amy Mbacké Amy Lo kontaan lool ci li ngeen def di ñaanal ngeen yeggalee seen sako ba commencé bisimilahi rahmaani rahim eggalee alhamdulilahi rabil alamina ñun itam loolu la lay ñaan yàlla nañ am ndam ci waañ wi ci barkeb sëñ Fallou ndax kii ñuy nekk kii ñu nekkal muy soxna maam Amy Mbacké day ku mat a nekkal di soxna su baax. soxna su doom soxna soo xam ne idole la jëfkat la roykaay la liggéeykat la jaamkatu yàlla la muñ muñkat la yaay faal la muy soxna mama mi Mbàkke di ko ñaanal nag ba lay sa yàlla na yeggalee sago waañam yi lépp lu mu ci sëmb ak li ciy yaakaar ak bëgg yàlla na ko yàlla ak nit bi sëñ Tuubaa ak sëñ Fall defal barkeb Cheikh Abdou Karim te nu bokkoo moom barkeb sëñ Tuubaa ma ne ko te nu bokkoo moom ndax ñu ñi nga ñun xamante ne ñoo fi nekk nag boobaak léegi ban fi nekkee sëñ bi sos ba léegi ñu nekk feek moom xamuñu ci moom leen lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Fàllu sëñ Abdou Karim liggéeyal maam Cheikh Rafal moom yaay Fall ñu nit nag ala accu rek la ñuy doon ba faatu ci waañ mi rek duñ fi jóge ba muy rey benn nag di ca togg a ak reer ak ndékki di ca togg domandaa ca suba lañ fi nekkoon kon bu ñu demee tey ji ba daral gi tege nii waañi mën ay nu nga xamante ne aj ami soxna mi la joor mooy borom waañu mooy borom bi yaay ami mooy borom benn bi kooku benn rek lay def gan gan gu fi ñëw rek ci màggal gi rek moo la bernde barke sëñ Touba kooku moom deful lu dul bernde ñu moom rek la ñuy topp di bernde di jàng ay berndeem barke sëñ Fall. Baye Karim daf ñoo defar man mi nga gis man daa beltin maa ngi judd 1962 laa judd bi yàlla defee jàmm ma xaw a gimmi ma ànd ak Baye Karim te bi ma ànd ak Baye Karim ba léegi. jooyu ma xiif jooyu ma mar jooyu ma rafle maa ngi sant yàlla dan daan daayira bu ñu daayira daayira daayira daayira ba ñu wàccee xiir yi ma jug taxaw man ne man de sama doom yi maa ngi ñaan yàlla yalla nañ ñëw ci kër Baye Karim ci barke Baye Karim la koy ñaan ñaan naa ko ci daayira bay jooy tey ji xale yi macha allah ñëpp ñëw nañ ci daa ci Baye Karim te Baye Karim daf ñu defar ñun daf ñu defar ba defuñu suñu kër yi dañuy baale dañuy jéggale sunu borom kër yi am amuñu benn histoire ak ñoom amuñu benn affaire ak ñoom lu dul jàmm ak salaam barki démb damay jënd fii gerte ci buntu kër gi ñaari nit toog di jaay gerte ñaari samay morom toog di jaay gerte ma ni kenn ki jaay ma ñaar fukk mu jaay ma ñaar fukk ma ne gerte keneen ki ni jaay ma ñaar fukk mu jaay ma ñaar fukk ñu ne maa ah, yow de soxna si ku baax nga li nga def nii nga jënd si ñun ñaar ñëpp beneen lii yàlla ak jëmmi Baye Karim Mbacke moo tax ma def ko Baye Karim daf ñu defar daf ñu defar ba ñun dañuy defaree koñ bu ñu dëkk dañuy defar duñu xuloo duñu xeex ndax barke Baye Karim Baye Karim Mbàkke nag mooy sunu ndey mooy sunu baay mooy sunu lépp nu nga ñaan yàlla mu yàgg fi te ak wér ak njabootam ak mbooloo mu jullit Baye Karim bi ñuy ñëw fii amuñu benn problème amuñu benn problème yàlla may nañu ay xéewal ci barke Baye Karim nu àndal ku baax la muy Cheikh Abdou Karim Mbàkke ñuy dund nag makarimal axlaa man nag la may wax moom waa Kër masaar lañ dëkk jëwrin baaba Diouf ak yaa Abi Fall kenn mënu leen a fay ci kër sëñ Abdou Karim ndax ñun ñëpp makarimal laa la ñuy dund Cheikh Abdou Karim Mbacké nag dañ koy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér ndax ak yàggam fi moo ñuy dimbali ñun jaami yàlla yi ñun ñëpp ndax ñim defar ñëpp bari na man mii di wax ak yow lu ma mën ren lu ma mën sëñ Abdou Karim Mbacké laa koy sant ndax daf maa jële fu sori nag fu ma jaaxlee ñëw ci moom mu ñaanal ma te wax dëgg saa lu ma gis ko li may wax daal yàlla na fi yàgg te wér te góor yàlla yii tamit yàlla may leen kàttanal leen ndax ñoom it ñoo ñu dooleel. taalibe yëpp fii mu toll nii bàyyi Abdou Karim daf ñu ne woon lay ca Gédé bis bu ma ñibbee Ndindi ku màggal si te yegg si woon Ndindi dina mel ni màggaloo fi mu toll nii màggal gi de tàmbali na bërki démb lañu commencé di rey ay nag di teg démb noonu ba tey te suba lay raw gannaaw suba yit lay rew waaye daf ni taalibe yi na ngeen ñëw siyaare si nan ko teg ci yar ak teggin makaarimal axlaax makaarimal axlaax nag xam nga mooy lan bu la sa mbokk jullit juumee ba tooñ la nga jéggal ko te Serigne Touba rekk tax ndax nag Serigne Touba yi moo jéggal ay noonam ba bis bii tey jii am kon ñun lan mooy sunu mbir sunu mbir lépp moom mooy danoo war di jéggale di jëllale waaye di dox ci makaarimal axlaax gi nga xam ni moom la ñu bàyyi abdu Karim Mbacke Fallou lu woo loolu rek moom mooy li nga xam ni mooy sunu njariñ fii mooy sunu njariñ ëllëg ak a bari yërmande ak a baax barki démb Ndiaye dañoo toog di waxtaan ak moom ci ci mbiri addiya fekk ñu indi sunu sunu addiya ànd ko taawam bu baax bii muy soxna may laat waaye bi ñu yegsee ba toog mu ne addiya ji addiyee ji pour jëmewaat ko ci jaami yàlla yi rek a tax ngeen ma koy jox te bu ngeen ma ko joxee dinaa ko jëlaat dugal dugalaat ko ci jaami yàlla yi kon ko booy ut makaarimal axlaax ba yegg si ci sëñ Abdou Karim Mbacke Fallilu da dangay dëpp këram gi amul tiijaan amul murit amul xaadir amul laayeen ñëpp la bokk uuf ñëpp la yemale ku ñëw mu teeru la teral la kooku mooy sëñ Abdou Karim Mbacke Fallilu nee na ñi ñii toog ci kanamam mi ngi leen di ñaanal ñaan gi mu leen ñaanal genn ñaan la ko bokk. ndax awuma geneen genn googu ma leen di ñaanal moom laa am. nee bu ko ñaanee rek man ngeen a yeewu. bisimilah tàllal leen jàppale leen ko ci li mu. waaw kay ah? ma koy ubbi tey ko sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci kàttanu yàlla yal yàlla faj seeni aajo yal leen yàlla sàmm fi ngeen bëgg a yegg yàlla leen fi yàlla yóbbu ku ci am jafe-jafe yal na yàlla saafara dañ ko lal bu pare bismillah